sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu sëriñ Abdoulahan Mbàkke di leen yëgal ne daa jëlee ndigal ci sëriñam soppeem sëriñ Sidi Mbàkke xalifab sëriñ Touba Seex Abdoulahan Mbàkke muy liggéey yu bàcc jëri gerte ga dajale ko jël ngooñ ma jël gerte ga for pàkk ya tooli Daaru Salaam bokki barga ñu war a départ ajjuma ñaar fukki fan ci weeru décembre 2024 fii ci Touba mosquée ak mbooleem gox yi wër Sénégal bu ñu xëyee ca samedi ja ñu songu liggéey ba sëriñ Amsatu Mbàkke Abdoulahan di ko yëgal ku mbokkal Xaadimu Rasuul rawati ñi mbokkal sëriñ Abdoulahan Mbàkke seex yoon wi kilifay diine yi ak kilifay aada yi bokki jullit yi ak bokki taalibe yi xarit yi soppe yi dëkkandoo yi bëgg ñu maase ci dem ca te yóbbaale ay njëfandukaay raddu ak fourchette ak i saako ak i parla bu ñu demee bàcc gerte ga jëri ko dajale gerte ga def ko benn jël for pàkk ya sëriñ bi sant mbooloo mi ñaanal leen yëbi leen mi ngi ñaan ñu dem ci jàmm dellu suwaat ci jàmm làq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aju barki Seex Ahmadou Bamba mi ngi ñaan sëriñ Sidi Mbàkke jëwriñu sëriñ Abdoulahan Mbàkke sun borom yokk fanam ak wéram bam àggale ay mébétam te noo ànd ko ak moom saadixub murit bu jëf ndigal na mel ne koy xare boole yéene te yabal ba day